soxna Astou Boury Mbacké desul ginnaaw si élection législative yi li koy firndeel mooy saa su nekk moo ngi si proximité yi café yi ba si meeting yi nga xamante ni mu ngi koy amal askan wi di koy woowee fu nekk saa su nekk fii nag nga xamante ni bokk na si ay jigéen yu gisul woon seen bopp si parti bi nee nañ kat bu ñu fa toogee yàlla ak moom moo tax nit ñi nag yàgg nañ ñëw di leen nax ndaw si dem sax ba joxoñ kàngamu parti bi fii si diwaan bi mais dañoo découragé tey boo gisee sax ñun ñi ñu li ngay jigéen a tax ñu ndax ñu nangoo liggéey lañu ñu nangoo daan suñu doole lañu te dañuy suñu ñàkk rek la ñuy dundee ndax projet yi ñuy dégg dégg am gisaguñ ko ku ci ñëw dañuy wax jàppale la ba nga dem boo paree yow dootuñu la teggati bët paloo keroog mobilisation bi dëkk bi yëpp a ne woon man maa jëroon paloo ba mu paasee keroog bu ko wootee mois de vocal la ñuy dugg suñu góor fa demee mu ne aw ma jot ba ñu meetu fee teg tànkam moom xam na baax meetu fee tànkam te Macky Sall fii à 100 pour cent la fi gagné woon keroog. muy bañ koy watee caaween ndax dafa ñëw ba ngeen ma jàppalee jàppale makka ñu dimbale leen ñu jàppale ko ñun ñëpp keroog lañ ko gëj a teg bët comme que nag soxna si Mbàkke ginnaaw yàlla yonent ba sa maama géej te yéen la ñu yaakaare àjjana te yàlla yeex dañ lay jàppale mais ci kaw jàppale ba dañ laa jox suñu condition am yaakaar ci moom moo tax ñu ni dinañ fa seen ànd ak moom ngir fexe ba président Macky Sall am ndam si élection yi waane soxna si bi mu jëlee kàddu nu mu koy defee noonu rek la ko wéyalee nee na li koy itteel mooy boobu nag mi ngi si loxoom ak ay ñoñom fépp foo xamante ni am na quartier si mën ci doon am na fa ay maire ay responsable de jeune femmes adultes lépp nag mu leen soñ yi ngir ñu jàppale le président Macky Sall pour que mën a am ba faaw. ndax dafa am nu ma suñ borom bindee mooy ñeme dëgg ba bu may wax duma ci ba dara te nit ki su fekkente ni dangaa feebar jàkkaarloog docteur boo ko ko diisu doo am doo am njariñ docteur bu mën a faj nag laa wax xaw ma docteur bu mënta ta faj wala docteur bi naxe mbaa docteur bi wut xaalis man nag man soxnaa Souboury Mbacké li nga xam ne mooy sama naqar mooy lim fi leeral léegi tama sa dugg saa nopp waaye li wér te mooy bu fekkonte ni ndax man mën na maa supporter ñàkkum courant sax mën na maa supporter ñàkk dépense mën na maa supporter ñàkk lu ne waaye mënu maa supporter ñàkkum ndox ba tax na waxtu wu nekk sama social day gën a yëngoo cim ndox loolu ku ma xam xam maag loolu xam naa ne xëy na soxna Ndiolé Diouf ak taalibe koy xaw a ñuluk ba du mën a jàkkaarloog man sant ma dara mbaa mu diis ma dara waaye yow Diouf Samba xam nga ni sa mag laa ñoo bokk baay boo ma diisoon lii ba tey faju na te na ngeen jàpp ne ñaan naa ko yàlla ñaan ko Serigne Touba fas naa yéene balaa moo am ñetti weer dinaa leen tëralal fii ay tiwo indi leenu ndox maa leen ko wax mbaa naruma ko la sëñ Cheikh Mbacke waxoon rek laay wax lépp lu ma wax nar naa ko bu dañee nag ci suñ borom la waaye man li ma wax fas naa ko yéenee def